ngeen bëri ay combat Pikine <coughs> benn ci combat yi am coow diggante booy Niang Balla Gaye Boy Niang démb génn na li mu wax bari na mm. seetaan nga ko waaw seetaan naa ko euh, wax ji mu wax dam see ànd di mm. tax ma ànd ci mooy mm. daa ba heure wax jot mu wax waaw waaw parce tamit dafa doon bëre ñëpp xam nañ dafa bëri tafaatin ñu gis làmb ji ni mu demee. génnagul stade bi. nit ñi def seeni vidéo pourtant ñun. bu Balla gay daanee. biñ ko daanee. ñëw nañu jël si ma gis nañu wax ji wax wax ju rafet ji ma ci wax. amul benn loo xamante ne lu koy sonnal la ci combat bi wala loo xam ne lu may sànni Balla Gaye lu ñaaw. lu dul sa staff. dégg nga. sa staff bi ak cumukaay beeg yooyu rek laa ci wax. te loolu lu sama domaine sama yoon nekku si. Mm-hmm. parce que dëkkuma géejawaay Pikine laa dëkk. Mm-hmm. lu dëgg mm-hmm. jël nañu ay tuuma teg ko ci kaw booy ñaa du mbër day wiiri ay rond point. yaa ngi may dégg sax su daanoo du ñu bëreeg moom te ay contrat tënk leen. këyit moo leen tënk. nit da ngaa yoreel Balla Gaye ak booy ñaa la ñu signé. nga Balla booy ñaa du nangu ay staffam du ñu nangu. yaa ngi may dégg est-ce que. Mm. boo doo di ko njëkk bëri te combat boobu njëkk taxaw kombaa boobu. dëgg mm. ñun ñi nga xamante ne suñu jàng soriwul sax xam nañ ni booy Niang li mu wax moo yenu maanaa léegi nag suñu papa Gaston laay wax. Mm. kenn du ko jàngal ni muy def. waaw muy ndaanaan. Mm-hmm. muy ku ma muy suma papa. Mm-hmm. doomam di suma xarit makan mm-hmm. maa ngi koy ñaan ngir yàlla mu woo Boy Niang woo estafu Balla Gaye ñu toog wax lépp loo gis rek waxtaan la ñu waxtaanee ko balaa muy gën a jëm kaw. parce que tey estaf bii ma gis nii bu booy ñaa bi ni ma leen xamee xameewu ma ko benn estafu Pikine mm-hmm. xam nga mm-hmm. ñu ay boromi bopp lañu. Mm-hmm. te kenn mënu leen a nax. lu leer laa lay lu leer laay wax. lu ñuy wax ci su lu leer lañ koy teg waaw. parce que booy bi ci boppam di bëri tey moom waxuma sax étape bi booy bi. dafa jàng ba yey ay kayitam xam na luy yoon. xam na lu ko yoon may ak lu ko yoon mayul. du dëgg. lépp de ni mu waxee moom leeral na. non dafay dafa leeral naññ. parce que tamit heure wax bi moo jot mu génn wax pour pourtant ñoom ñëpp dañoo def si biir stade bi. booy ñaa génnagul sax stade bi ñu commencé di ko kaañoo du ñu bëreeg moom day wër rond kii du mbër kii du mbër kii du mbër kii jeexal xale yi kii du mbër. kii jeexal xale yi <laughs> waay yow. Ah, démb de lim na ñu bari ñu ñu bari foogutoon ne daan na leen. dama ne la jaaxaanugul biir arène nationale Boy Niang jaaxaanugul biir arène nationale. loolu de wax la. waaw moom de jaaxaanagu fa de te xoolal ñi ko daan yëpp ñaar yëpp par avertissement la. waaw waaw te xoolal ñooñu ñoo muy Lac de muy kii. Tapha Tine du dëgg. Mm-hmm. boo leen boo teeyul def ndànk ndaanaan kese moo leen di daan de. Mm. waaw ñu naqaree daan dégg bi daan tafaatin mm-hmm. ndaanaan la mm-hmm. nekk ndaanaan moo tax mu daan tafaatin mm-hmm. lu dëgg booy ñaa ndaanaan la booy ñaa dafa am ñu mu fàtte mu ngi naan diw laa daan géejawaay diw laa daan géejawaay ñi ñëwoon ñi ñëwoon um, Ndeye Ndiaye Tyson bi nag Alassane jiko ñooñu ay xaritam lañu bëggul leen a tudd ñooñu ñan la waaw ay mbër lañu yu rek géejawaay ñu léegi ay xaritam lañu. Mbapatu Ndeye Ndiaye Tyson. Ndeye Ndiaye Tyson bi moo ko jël maa ngi fa. daan na ci ay mbaru géejawaay. xaadim xaadim Ngom mu ngi fa woon rax ko Omar Sène. Aliou Seera sama rakk mu ngi fa woon ñun fii lañ dëkk Arsane Djigo bii lañ dëkk lañuy dem mbapat bi ba mu commencé ba nu mu jeexee seetaan nañ ko. ñaata mbaru géejawaay la fa daan. quatre mbaru géejawaay yoo xamante ne boo boolewut ci lim bi. ci lim bi ñu doon lim dem waaw boolewu leen ci. ñeenti mbaru géejawaay yoo xamante ne ay xaritam lañu xëy na kersa moo tax ruus. moo tax tudd leen. waaw mais ndaanaan bi guy gii la ba foofu parce que bi booy ñaar di sonal géejawaay. moom moo ñëw fippu. taxaw taxaw. billaahi. ba pare bëre bëre bi. moytuwul dara. ma koy félicité bu baax guy gi. Mhm. waaw. li nga bëgg a wax kon mooy Balla Gaye na ñëw taxaw. non waxuma bu mu ñëw bu ñëwee baax na bu ñëwul baax na. Balla Gaye aw ma lu ma dama ne dama ne la. li booy li ñu bëgg def booy ñaa. booy ñaa du ko nangu estafam duñ ko nangu. liñ ko bëgg def. teg ko fii dem jëli ji keneen ba ba ba pare ñoo bëreeg moom non loolu duñ ko combat bii moo taxaw. waaw li may naqari mooy est-ce que jëli ji keneen ba pare kooku est-ce que dina nooy noonu maanaam Gris Bordeaux mi nii wax dina nooy noonu pour dem rek jël ko daan problème bi mooy Gris Bordeaux bi nit ñi Sénégalais yi jàppee ni dafa nooy nooy neex la loolu ma ci jaaxal ñu ngi nax seen bopp nag est-ce que Boy Niang moo war a gën a dëgër Gris dama ne la Gris Bordeaux boobu Sénégalais yi jàpp nooy neex la waaw ñu ngi nax seen bopp waaw billaahi ñu ngi nax seen bopp du nooy neex de ok wala dañoo fàtte tàkkusaanam ak Eumeu Sène fii nooy neex dina bëree noonu. keroog keroog metti na. ah keroog metti yi ñuy wax ni yëpp kan moo si kan moo ci tëral boo kii. Gris Gris balaa ngay wax nooy neex nga toog ci dënnam boobu ngay wax nit nooy neex lu kooku du nooy neex de. Mm-hmm. naa xeex mën dama ne la dadul nooy neex mooy nooy neex mooy koy toog ci biiram. Mm-hmm. jàpp ko téye ko yóbbu ko fu la neex. loolu mooy nooy neex mais Gris du nooy neex de. Mm. waaw Balla Gaye champion la. kon waxatul bërekat la. képp ku ne ku ne du sampion rek. seytaane nga naa fekk nga. dëgg la mais problème bi mooy calcul bi moo bari na ñëw bëre ak booy bi contrat moo leen tënk nañ ñëw ñu bëre ku yàlla may ndam ñu xam ne loolu la ndam li génnu senegal dëgg. est-ce que du li déggal di wax la ñuy sóoraale dañ ko da koo xam. non waxu dëggool moom wax dëgg yàlla mu ma ci sori ndax xam na ko wala xamu ko waaw booy. Ah, non booy ñaar dëggal na loolu démb. booy ñaar Balla moom non non waaw dëggool mun na ko xam. mais booy Balla moom gënul neexal daan ci mbari non noonu man man mun man d' accord ma d' accord ma dëggool suñu papa xëy na neer yee tàngoon mu wax ko mais gën a neex ci la daan. Mm. ah non non boo ko jëlee say mbokk kenn du ci nelaw. champion la champion la dañuy waxante dëgg. Mm. en tant que Pikinois nag ni may waxee nii. damay wax teg yàlla tax. Hmm. dégg hmm. jëlal Balla Gaye nga ne. Hmm. doo doo dem fii ak doo dem doo doo dugg ci àll bi. dem uuti ji defari ji sa bopp. jëlal Balla Gaye nga ne doo entraîné. ndax moo neex a daan wala neexul daan. noonu loolu xëy na waxu tàngoo tàng tàngooru yaramam la suñu papa la muy ku ma respecté. Mm. koo xam ne man yàlla def na ni bi ma koy xam. Mm-hmm. ak bi ñuy sëkk man ak moom. Mm-hmm. ñuy demalanteeg dikkalante booy ñaar judduwul. wax dëgg yàlla. Mm-hmm. booy ñaar judduwul parce que man euh, pikin mbooloo laa daan nekk di ko seetaan di waxtaan mu may yónni. muy suma papa ma jox ko cër nag bu baax. ku baax. waaw ma koy ñaanal yàlla ko yàlla defal jàmm mais Balla Gaye neexu la daan de. ngeen jëm rapidement rek. le 27 la yaakaar naa. Mm. Eumeu Sène Bombardier mm. bële. waaw waaw waaw jeex jeexaat rek. <laughs> jeex jeexaat. waaw Bombardier nee na Eumeu Sène moomu ko de Balla Gaye ko moom. nag maa ko moom parce que maa boobu noonu mu ko génneel. waaw Balla Gaye la daanoon. waaw mu ne day jeex jeexaat delloo fa sa loxo daan ko. léegi nag ñun ñoo ko daan. ñun ñooy jeex jeexaat delloo fa suñu loxo rek. nee ni yéen ngeen xaar seen bos. waaw ñu ngi koy xaar ñu xam naa lu ñuy génneel. Ah. waaw xam nga moom sama waay la. <laughs> sama waay dañoo dajee signature. xam nga ndeysaan ñu muy nit ku baax. man bëgg naa chaque jour rek face à face di mel noonu. waaw comme bii passé nit ñi. mbër yi di xool. Mhm. face à face bu mujjee bi moog Bombardier ak Eumeu Sène. nañuy xool yu mel noonu. daan yu neex na amul histoire. saa ñuy damm ay sées ak. di dóorante di xeex ci biir ay signature. lii ñu def nii rek. Mhm. tey wane nañu loo xamante ne tey boo yëpp war nañ ci def benn jàngat. Mhm. xam gisoo fi benn. benn site bu fa ñëw ñu nangu sa téléphone. gisoo fa ñu gaañ fa kenn. Mhm. foo nañu. Mhm. waxtaan nañu ku nekk génne li nekk sa dënn nga wax ko. te kenn dépassé wul sa morom. ñun tamit. Mhm. muy ñi ma ñi ànd ak bombardier ak ñun. taxaw nañu ñun ñëpp ñu fotow. wan ni tey ñun ñoo bokk ndey ñun ñoo bokk baay. loolu laay wax nag tey supporters yi nga xamante ne tey. ñun ñooy dalal waa kaw waa waa mbuur nañ leen dalal si jàmm mun nañ sax toog bokk toog ñun ñëpp. ñu xam ne lii sport la. may wax nag di lancer appel lii tey autorité Pikine yi. Mhm. dee leen gestu mbaru Pikine yi. Mhm. autorité yi. fii moom mbëru Pikine waru fee bëre. yaa ngi may dégg te duñ duy stade bi ba mu fees. dégg. waaw man mairie falu fii bees xawma leen. Hmm. waaw en tant que waa nag munu la wax kii kër gii la dëkk. Ah. waaw man Pape gi Ndong laa xam. maam laay woo. moom moo moom Pape Góor gi Ndong bi ñu fi jëlee. ban mun naa la won këram. këram a ngi nii teg a pool maa ngi koy maa ngi koy woo. mu ñëw jàpp si combat Ama bi ak combat booy Niang bi. Mhm. ak combat Eumeu seen bi. parce que du benn combat rek la ñu am. Mhm. Thierno Ndom. Mhm. Timbo. maa ngi leen di woo Amadou jara ma koy félicité bu baax a baax maa ngi koy félicité bu baax a baax a baax a baax di encouragé Lamine Gueye. di di di woo suñu président suñu maire Modou Gueye di ko félicité. waaw ah, Jidda Caaroy Kaw. Kaw. di félicité ma Diop sama jarbaat bi nekk ak moom. Mm-hmm. maa ngi félicité tamit ci Losaar suma jarbaat député maa ngi leen di woo ñeen ñëpp ngeen ñëw def maas ñëw jàppale Eumeu Sène mm-hmm. Ama Baldé Boy Niang seen combat bi ak mbëru Pikine yi fi nekk dee leen gëstu mbëru Pikine yi di jàppale booy boo leen bëggee tey ñu leen di jàppale.